parti moom li tax ñu askanu Sénégal gépp loo xam ne lu lu yanu bu lislaam la parti bu dëgg la loolu daal dañu fas yéene doxee fexe jàppale képp ku néew doole loolu la ci ndaw ñi nga xam di wax ni ndaw moom maam jot a jàppale kaw benn fànn laa lay wax gone moom boo dee gone da war a liggéey d'abord mooy jiitu ndax gone moom warut xaar ñu koy dimbali. demee ba commencé liggéey bi lépp lu mu si mën ñu fekk si ko mais ndaw daa war a d'abord jug créer dara kiy jàppale ñëw fekk si ko jàppale ko comme ñun ay ndaw lañu ñun ñaan yàlla ñu ñuy liggéeyee rek ñu wax leen yoon ba nu mën a liggéey si côté boobu te fas yéene ànd ndaw yi ñu comme ay ndaw lañu jàppale leen si liggéey bi ñu yor si lépp ko daal ñaan nañ ko suñu borom yàlla ko suñu borom def mooy mooy dogal wala tawat yi dëkk la bu solo si réew Sénégal bi seen parti la parti moom lu ñu fi fas yéene mooy si liggéey bi seet nu mu gën a li fi manqué ñu fexu parti bi def ko fi li fi manqué parti bi ñaanoon yàlla doxal ko fi ba usines yi fi manqué woon lépp luñ si mën rek mu yokk si fii Thiès parti moom taxaw na pour liggéey si loolu si njiitul président Macky Sall monsieur Macky Sall loolu moom lépp luñ si mën a doon ko avancé si loolu ci parti bi incha allah. sànq euh, Euh, tey jotaay bi na ko ngeen ubbi jotaayu politique ak jàng alxuraan ndax loolu day wane ne euh, si parce que euh, politique bi fi am bi fi amoon ak bii ñu fa yéenee doxal daaw dañu war a d'abord ñu ñu soppeeku surtout maa xale yi maanaam melokaan yi bu jiitu ak jukka yi di wax ni lépp lu ñuy wax mënoon lu nar waaw surtout te bañ a wax dara ngir àdduna. ndox boo jàppee ni biis dina jot nga jóge fi da ngay sóoraale loolu maanaam lépp looy wax mu doon loo xam loo nar a def la muy baatub dëgg baatub lislaam ñun xale yi ñu soppiku maanaam si wàllu col gi xool la sol ñu defal doxal ko seet li fi maam ñu bàyyi woon ñu jéem koo indiwaat jéem rek dañuy jéem nag ndax day xaw a day waar mais danañ jéem ba parti bi daal dara du wutoog dëppoog lislaam du ñaan yàlla nag comme ŋàññi kenn ndax euh, boo jiitee ki fi yàlla teg ñu koy ñaanal mu wér surtout ndax bu wéree rek ñu wér euh, muy parti boo xam fas yéene woon ŋàññi kenn noo fas yéene ànd képp ku Sénégal képp ñor ñu ànd ak moom liggéey ko si noonu mais dinañ wax dëgg yàlla comportement yi ak xale yi surtout xale yi. maanaam wax leen ni doomu aadama mënut am dara te liggéeyaloo waaw liggéey mooy fay waaw surtout ma ñu bàyyi leen di wax ni nan ñu dimbali loolu moom dama si rêvé di ànd ak ñoom dama bëgg ànd ak ñoom liggéey ak ñoom. ñu wan ni lii mooy nit ku ne la ngay am yaa koy jariñal sa bopp waaw ndax ñu fekk si la jàppale la. ñu faral di góor day góor ci dara liggéey bi am na solo mais euh, borom kër aussi bëgg nga bërëb suturluwaay ñu jot ay xibaar ne yow si fànn boobu pour yombalal askan ak yooyu Ablaye Samb ak parti bi jiite yan jéego lañ ci fas yéene. waaw waaw daan doxee rek lañu fas yéene daan daan lu ñu yàlla nattoo mooy promoteur lañu. di si ay terrain maam def ko social nag maam seet ñi néew doole ak mm, kenn koo xam ne jote na si rek chaque fin de mois ñu daggal la parcelle ngay versel dix mille ba loo am rek noonu la fa fas yéene doxe bëgg nañ tamit parti bi képp kuy xale am si terrain képp kuy mag tamit am terrain ci liggéey bi nii suñu liggéeyu bopp la noonu la ñu fas yéene doxe te comme parti bi dugg si na. lu fa xëy yaatal ñuy jàmbat naan amuñu kër bëgg nu leen jàppale ba kenn ku ne am kër si anam boo xam ni di ko fay te doo ko yëg si chaque fend moom loolu moom fa seen ko see taxaw la wax dëgg. di dégg déggu leen si de. ndaa ñaan rek bañ see dugg yàlla ñu si yàlla foofu waaw ndax suñu borom moo yor lépp mais ni daan doxee daal ba egsi fii noonu la ñu fas yéenee fas yéene ko yokk nag ba problème bi bi am fii cees may dégg mbuur kaat yooyu maa ngi si doon dox sax avant man dox naa si boobu sax parti bi egseegul xalaat naa si pour jàppale ñi si ñàkk ma dimbali leen ba kenn ku ne am jotaat sa wàll loolu moom dox naa ko avant boo jëloon see sori noonu la